nekkul caaxaan ci réew bu normal alors moment bi bakkan bi rote yow mi nekk njiit mhm. yéen ñi nekk ay kilifa mhm. teewuleen a añ teewuleen a ndékki teewuleen a reer c'est-à-dire bakkan moo dul caaxaan waxuma laa nga jàpp nit ki doon def manifestation jàpp nga ko maîtriser nga ko mhm. li jaadu ci yow bi nga koy jàppee mooy nga informer sa kilifa procureur bu la demander pour même nga nga nga def euh, nga nga laaj ko pour def enquête ay question nga interroger ko nga def ko même boo amul ndigalam waroo ko def parce que dafa am fu muy yem da ko war a arrêté mhm. que ndigal moo tax nga arrêté ko parce que dañu ni dafa def manifestation bu mu amul sañ-sañ def ko bu mu amul ndigalu def ko yow mii maintien de l'ordre demal nga arrêté ko mais foofu nga yem mais jàpp ay ay nit te yenn saa yi nga gis ku ñu agressé ci loxo way takk dara mu wóor la ni dañu jal dañu dañoo jalgati jalgati boo xam moo yées li waa ji def toujours dama koy fàttali dama naan bu la yàlla mayee ci biir réew ma nga sol tëni boo xam ne ku la neex arrêté kayit wu la neex laaj ko bu ngeen xuloo ci mbedd moo la tooñ foo ko yóbbu moom du wax kon dara jàll nañu la bul abusé wu ci loolu pourtant ki nga am ci kawam pouvoir boobu moom ak ay moroomam yoo composé société bu tax ñu jox la loolu mais kooku boo ko jàppee après bëgg jalgati droit am te yow sañ-sañ bi nga am moom mu jox la ko mais yaa ngi koy tooñ ba tooñar bi ko dóor yi ñuy dóor ay nit ci brigade yi ak commissariat yi moo jàdduwul beneen bi ci des euh, acharnement baaxul parce que am na ñoo xam dañuy des toujours honnête man am na benn damay joxe benn benn anecdote bu tuuti rek bu tuuti du ma sax une minute mhm. benn commissariat boo xam ne commissariat bu xam naa ko bu baax on a une très bonne relation ma daw guddi ñu arrêté ma ci lu ndaw ma ñaan nanguwuñu ñu fourrière oto bi ma ñëw gaareel leen tëj ci oto bi ñun ma dem da nga bàyyi caabi ji man leen déet kan laa koy bàyyeel un jeune policier du ma ko jox sama caabi li wér woon mooy man sama ngor mooy moom ma sàccaat oto bi guddi du fi jaar gaare naa ci biir commissariat bi damay dem ma gis keneen koo xam moo chefé kooku ma koy ñaan pour mu bàyyi ma mun ma kaay toog ma noppi fi ma toog beneen police bu ndawaat ñëw ni ma da ngay génn man ko non sa kilifa lu moo ne ma naa toog mun ma man man moom moo la wax nga toog man maa la wax nga génn mun ko sëñ bu ma jaaxle fii laa war a toog mun ma dama ni neex naqadi da ngay génn fan la policier di waxee nit kuy demande sàkku ndimbal nga génn ci biti ci biir commissariat bi xam naa ki ko doon seefam bi ma doon ñaan su ma ko waxoon bu ma toogal commissaire bi jiite commissariat bi am naa moom une très bonne relation mënoon naa ko woo mais nekk simple citoyen nangu mu def lépp loo xam ne pouvoir bu mu am la sama kaw ma génn def li mu wax toog ci fleur yooyu di ma pour moom moo am ndam. dama ko jàngal àdduna doonte xam na ko la xamu ko que moom li mu def waru koo def man nangu mu def ma ko parce que jamono dina ko yedd ëllëg yu mel noonu nag moo war a dakk yu mel noonu moo jaaduwul torture yi ci ñuy def manifestation kenn waratu ci kenn waratuñ ci tuur deratu kenn du yoon leneen ci xibaar yi bokk na ci suñu naataango taskatu xibaar bi di eh, Mati Sarr Niaw moom dañu ko eh, nag eh, mi ngi en garde fi mu ne ba nag tey jii la ko war a déglu mu nar ci élément yu sûreté urbaine la ñuy teg ca ndoddam nag bari na bokk na lu jëm ci appel à l'insurrection ak violence ak en commission d'acte loolee lépp ñi ngi wax di de nature ñu ngi koy teg ci ndoddam ak itam outrage à magistrat Birahim mmh. mu nekk saa bu ñu xëyee loo xam ni ñu koy gis bari na suñu naataango naataango journaliste yi ñuy teg loxo ndax laaj bi war a samp mooy ndax ay journaliste lañu wala wala li ñu leen jàngal euh, la ñu beddi est-ce que ay journaliste lañu est-ce que ba ñuy wax journaliste bay wax wala mm-hmm. citoyen bay wax wala manifeste wala euh, euh, nu ñu koy eti sympathisant moo wax ci mm-hmm. homme politique c'est une très bonne question parce que souvent nañ naan jàpp nañ journaliste jàpp nañ journaliste waaye la boobu la ngay wax mm-hmm. dafa métier journaliste informé o am na ñoo xam ne dañu dañuy wax loo xam ni wax dëgg fa na yàlla seen xool lañ koy tibbee rek. waaye du question information. Mm-hmm. léegi bu ñu la jàppee ñu ne jàpp nañ journaliste. Mm-hmm. ma c'est mm-hmm. mais dama ci gis cas yoo xam ne dañ naan nit def na nangam. waaye parce que journaliste la rek ñu ne jàpp nañ journaliste bi. wala métier moo tax ñu jàpp ko alors que la mu def. amul lu laalewul ak métier journalisme moo waral souvent ñuy wax na ni il faut que ñu. ñu xoolaat bu baax nañu wax ci réseaux sociaux yi surtout parce que jàpp ci internet la ci wàllu Facebook la yore la mu bind ci page Facebook am mm-hmm. ah man sama sama àqulaay taalaa lay wax mm-hmm. du waxum journaliste waxu boppam la moom en tant que citoyenne boo xamee ne am na sañ-sañu wax mm-hmm. léegi jàpp ci biñ ko jàpp ci loolu nag man foofu man d'accord ma parce que ku nekk am nga sañ-sañ wax xam nga dem maa ngi dégg ñu naan président nee na dafay xaw ma lan eh, di menacer mm-hmm. eh, président eh, wax dëgg fa na yàlla xaw ma ku la ne la ni mën nga régler réseaux sociaux yi. c'est mm-hmm. pas possible kenn mënu ko fenn ci àdduna laa wax. Mm-hmm. régler réseaux sociaux yi ne ni lii dootu fi jàll. mënta nekk ci àdduna. xam nga lañ fa defoon ci Elon Musk bi mu yoree Twitter ba ba mu koy jébale. yenn saa ñu ne Donald Trump la mu wax ñu ne léegi dañuy mm-hmm. supprimer page Donald Trump mm-hmm. waaye ba ñu demee ba si biir moom ci boppam mu dem yóbbu leen comme États-Unis dëkku yoon la mm-hmm. dem yóbbu leen ci yoon ñu ne ko finalement sax léegi amatuñu droit supprimer sa compte réseaux sociaux mënoo ko réguler xam lan nga mën régulé nit ñi ba bu ñu dugg ci réseaux sociaux ñu xam lan lañ ci dugal ak lan lañ ci war a wax et euh, le, le danger aujourd'hui ñu ngi wax manipulation réseaux sociaux lépp ci réseaux sociaux yi nan la ñuy fexe ba léegi ñun ñu koy utiliser ndaw ñu koy utiliser ñu mën ko utiliser à bon escient utiliser ci li ñu ci war a ci lu baax c'est là la question wax la ministère nga wax ces euh, ci ci ci euh, suñu naataango taskatu xabaar yi te li ci gën a ëpp mooy càllalum dafay nekk ñoo xamante ne dañuy joxe seen maanaam gis-gis ci benn pann loolu mooy waral le plus souvent ñu di daal di euh, interpeller mais nag comme ni ko Birahim waxee encore une fois euh, dans un pays de démocratie euh, je pense que nit ñi mën nañu joxe seen li nga xam moom mooy seen expression maanaam liberté d'expression mën nañu ko permettre ci ñenn yi mais mhm. encore une fois est-ce que la liberté d'expression mu ngi permettre maanaam may na nit ki mu wax lu ko neex jëmale ko ci mhm. nit wala jëmale ko ci ay institution wala ak i yi ni mel donc loolu c'est la grande question que tout le monde se pose mhm. la réponse c'est évidemment non liberté d'expression c'est vrai que liberté war na mën am mais il faut que liberté boobu tamit mu am ci loo xamante ne ci lay daal di tonk mais euh, encore une fois ces arrestations multiples et diversifiées là war nañ ko xoolaat dans un pays de démocratie comme le Sénégal et c'est la raison pour laquelle boo ko seetloo fan yële gees Africa Jom Center génne woon na benn bataaxal boo xamante ne mu ngi doon wax ci ab rapport boo xamante ne def na ko ci démocratie ci wàllum liberté de d'expression ci wàllum liberté de presse ci biir gis nañu résultat bi li mu joxe mu ngi wax que ni euh, am na recul ci lu jëm ci démocratie am na recul ci lu jëm euh, ci wàllum liberté d'expression surtout avec les journalistes yi nga xamante ne arrêté nañ gën diggante janvier 2023 ak mais bi ñu nekk ça fait cinq mois combien de journalistes lañ ci teg loxo ñaata journalistes lañ ci teg loxo euh, ci ay affaires yoo xamante ne bon ñenn ñi peut-être mën nañu jàpp ne c'est purement professionnel dans le cadre du du du du du professionnalisme journalistique mais quand encore une fois nañ ko wax càllalum mhm. ces arrestations là il faut que mu dakk encore une fois ñi nga xamante ne ñu ngi bind aussi di wax nañu xam ne la liberté de ma liberté doit mm-hmm. justement s'arrêter là où commence la liberté des mm-hmm. des autres mm-hmm. et donc loolu c'est important pour ñu koy daal di euh, Pikine ginnaaw raay la dem ak kuréel goo xam nag nañu ko fa tax